واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه wal muslimina kullan assalaamu aleykum wa taala wa min jetti allah min juuli e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa ko garɗen ɗo nokku noon lovade o noon rasari ɓayde porte sallam noon a garde si pabiyadi manira ko e ala sakini fi hadi sakini l mi salmina hoɓɓe nde ɗo saare ɓe mundu wasaltu hina ma ra'aytu ma yasu'u qalbi gila jottimi ɗum yani ko mettinta ɓernda linnaki ra'aytu huna al islam al wadiha wa sunnat al wadiha ga addi ko l'islam laaɓɗo e sunna laaɓɗo keki iwo kuntu asma'uhu fi badi l ji miɗo ko e lutodiri ko nanannomi e muritaɓe muritaɓe ko tawa miɗo ko wona ɗum nanannomi kekina woobi ba sobiri murit ko kekibin wo jali e mutu différente tawden ɗo ma wajanna huna gayra al islam no kawo jali sika islam la yahtalifu l ithnan ala anna cheikh ahmad bamba kana waliyan min awliya illahi e katen nin duufidadi kuma سيك أمد بامبا يفسي بارتي دي وليوز دي ديوس كلا كتندو فيدا كتب الكثير في هذا المكتب علمناه شيخنا محمد سامسة في مدرستي قرأناه من قبل مسالك الجن وغير من ذلك قرأناه من شيخنا محمد سامسة نفعنا الله ببركته من قد ليفرز كي مستراو لي عواص إلي اللي بجا أترافيس دي سيمستري سيك محمد سامسة دي ماتم رأينا هنا كل شيء يقابل يطابق الإسلام والشريعة يطابق الإسلام والشريعة كلا من جيدو على فوق لوتن الشريعة على كل لوتن الدين إتاوي بوتوس ما تدو كيكي بين وجهي نادا ككونتريا إسلام نادا ككونتريا شريعة الإسلام ما وجدنا هنا غير ما كان يقوله أولياء على وجه التصوف لابد المورد أن يخطب لشيخه أن يكون تجعل نفسه كعبد Eh, amama khalifatihi ɗo min tawi ɗan ko almuɓe ɓen liggo ɓe mbayino maccuɗo no wara yesso kadi no min tawri ɗo almuɓe ɓe kekuno wojani simplismente nowoja aluunus ena tarbadia suma katibus e obédisi c'est sabi ma ra'ayna huna annasa kulluhum kullahum mutawadiina yamalu le wajihillahi tabaraka wa taala min ngari ɗo min tawani ɗo poɗodirgol min tawi ɗo yimɓe ɓe e jaggini goto fof illigatno ceerno no kawo jali junda junda no kawo jali violence yake kunowo jali jintina tarbadia e obédisi mestri ley kullu wahid min laysa lahu niyatun gayra niyati cheikhi hay goro ala ɗo anni sona anni e ceerno mum nin un son ka binlina un intention si ka intention disi sabi hay la tara yunaju ah, ah, ah, akhara hay goto ayiɗa e fof ɗo ni ginna contre ina islam illaki seedu islam farihina jiddan bada amanna allahu alayna bi an nuqabila alkhalifa cheikh muntaqa al amsu bada eh, muntaqa min kaaldi he makko alhamdulillah ra'ayna alkaramat la la tuskar fi afwahi la tuskar min jiɗɗo teɗu e wawata haalde koɓe teddini min ko non alors va deus pabiya a wonti deus sorteyani no fasi testa ko testa huno kalifa cheikh abdoulah abdoulmuntaga tambi noori sibili rispitu kuno kappuɗi conta al aqama al aqama mutanawia ñamele baɗɗe façon ngaji façon ngaji sina lawdi mbiyanna systéme aji mbiyanna kara alhamdulillah nashkurukum ghayata shukur alhamdulillahi kon liñ ci jubloo am luñ ci leeral lenn ci li fi imam bi wax Thierno Souleymane Balde nga xam ne mooy jiite union national di imam di Guinée Bissau di Guinée Bissau li mu njëkk wax mu ne moom ñi mu àndal ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dellu ci di wax ne lépp loo xamante ne nii ñëwoon nañ di ko utti ci tënk rek ci gàttal wala di ko seet ci dëkk bi buñ ci doon yaakaar fukk fekk nañ fi ñaar téeméer loolu lañ ci wax li ci dolleeku mooy euh, gis nañ ne dëkk bi lépp loo fiy dégg ci lu baax ñu koy def boo ñëwee da nga gis ne ñi fi nekk amuñu kuy xëcc fi di yóbbu sa bopp wala keneen di xëcc fi amul violence amul dara ñoom ñëpp kenn la ñuy déglu mu leen di wax ñu koy defee loolu la fi gis mu dolli si nag kon moom ci ñëw bi mu ñëw fii mu ngi gën a jokk boppam ci dëkk bi ak ñi mu àndal ñëpp ba li nga xam ne moom lañ gën a bëgg ci lislaam ci diina ñoom ñu gën koo mën a xam ni ñuy def ba roy ci dëkk bi ba ànd ak ñoom ci dëkk bi loolu nag yaakaar naa buñ ko waxee ci dëkk bi di Touba kenn ku nekk war ci mën a xamee ne dëkk la boo xam ne kay islam la mu dolli ci ne dëkk la boo xamante ne am na ay téere yoo xam ne sax daan na ko jàng ci sëñ Touba yu ma ne ay téere yu sëñ tubaa bindoon ci ka ko doon jàngal waaye dafa mel ni bi mu ñëwee fii lim ci gis dafa raw lañ ko jàngaloon nee na ba tey itam loolu mu ngi ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax mu dellu si ne tamit ci wàllu yar ak teggiin gis na ci loo xamante ne nee na foo ko na mosu koo gis jaar na ci daara yu bari waaye dafa mel ni mosul gis lu toll noonu ci yar ak teggiin mu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax dellu si nag di sant ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ mu sëriñ Touba di sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم